kilifa mi ngi ñaan macha allah sama ñaari kilifa yi ñoo dend damay kontaan je me sens en assurance. ñuy naa la sang sang yi. fay naa la bu baax a baax. <laughs> est-ce que je vais pas. yow de sama. de da nga ne. Ah, waaw waaw waaw sëñ ci yàlla moom koy gis. dañ koy wormaal dañ koy wormaal waaw dëgg la. bu leen yem ci loolu nag dee leen joxe addiya. dëgg la. <laughs> dëgg la comme yaayu kii xale bi jóge fi nii. waaw waaw ah, kooku la yaayam ñaar ñëpp bleu tey aussi ah. waxal ci Ali Kalaj ah leen def ko moom joxe ah? addiya di joxe addiya waaw macha allah incha allah émission bi mooy jël pee waaw waaw macha allah xanaa xamoo loolu waaw teguma ko fenn nag fu dul rek ki suñu maam salaam salaam amul ma amul ma dem te ñëw macha allah dégg naa boo dogoo ci moom loo bëgg yàlla ay question dogu sax moo ci amul xam nga gars yi biñ ne ko boo fi jógee ndax bu yeboo ñu jàpp ci jàkkay mm-hmm. ak jumaay mm-hmm. mu ne leen moomu ma ko di lii kat néegu yàlla la mm-hmm. mais kon nag bu yeboo ñu jàpp ci alxuraan bi mu ne du samay kàddu de du samay kàddu de yooyu may wax ci revue samay kàddu ni moom laa ko jëlee mu ne leen du samay kàddu de lii ay waxu yàlla la moo doon yónni jibril ne ko waxal waa ji ne ko xul na wax gars yi ne leen ñu ne ko waa ñin kon nag ci ku ñuy jàpp mm. mu ne jàpp leen ci bay baytal rasul samay sët daal ku ma leen bëggal toppatoo leen ma assuré la àjjana sans condition. Mm-hmm. macha allah sans condition la wax. Mm-hmm. moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam. déggoo ma day yaas de daf ne condition. ay diw nii la mel ak nii nii ak moom de non nee na loolu intéressé wu ko. Mm-hmm. man daal sama sët yi daal képp ku ma leen bëggal toppatoo leen. ma assuré la àjjana sa condition. noonu laa la bëgg xanaa loolu neex na. ba léegi nag yen ngeen am ñaar ci ay sëtam yu toog seen plateau bi. Ah, macha allah incha allah yi des nii ci télé bi nii. Uh-huh. ñu xaar. dañuy xaar. tagguñ si bopp de. Uh-huh. yàlla moo tagg suñu maam. Uh-huh. émission yi nekk ñun sërif yi neex na xari ñoo jël pee. incha allah. non test day jël pee. revue de presse jël pee. Mm. subateel moom. moom P plus P la parce que ñaari P. waaw ñi ñoom ñi ñoom gàddu gàddu nañ. tur bi rouge gàddu rouge. yeneen bi dafa amoon ñu muy àndal ñoo ngi saaba yaa ngi <laughs> on est <laughs> waaw yaas boobu. yaas depuis le na nga noppalu tuuti nag ndigal la parce que dafa dugg cinéma. ngal la doom day méttee sama journaux yi ndax daf may sonal. waaw moo taxit. donc nga daf maa bëgg bokk na ci sàkku euh, àjjana sans condition. waaw ñu ngi koy sàkku. waaw noonu yéen yéen baax. ay dara bi ñu soxla potin yi. daa soxla ku koy jégal ndax gerte gi. ku baax la. macha allah daf ma bëgg. daf maa bëgg. man de li may doon sëtam yëpp képp ku ma gis nga xam ne ni sëtam nga moom. damay mel ni man santu ay dara. ndeysaan. waaw mu ni. Mantula yow lay waxal. waaw sama doom jàngi noonu nag kooku ma bëgg. Ah. waaw mais nuyu naa leen nag. te namoon naa leen tam. waaw te àjjuma nag vraiment ngeen fi mbir bi de. tur bi man waaye nit ko mu naan tuut bi comment. Eh. plateau bi dem du bëri waaw yow it nga jaaraat. ndekki bi faut arrêter là. arrêté te yow eh, yaa ko fi indi. yaa ko fi indi de yow yaa yàlla Moussa. oui mais c'était vendredi on est lundi là. faut être ah, sérieux quand même. d'accord ah, kon nañ dem feneen. tribune yéen wax ko. non ni mu ko tàmbalee neex na. jaaxal ko <laughs> ndeysaan affaire olof daal dara la ci mënul. acca ñu dem ma dem. acca ko. contrôler le nga 1 plus 1 égale mais rapport yi moom 1 plus 1 égale 0. du mujj fenn. Mm. autant de rapport pour rien. Mm. dañuy jël seeni rapport yu dul jeex. Mm-hmm. table président de la république. Mm-hmm. jal koo jala jal ba mu ne mooy. Mm. mais du mujj fenn. fenn la dul mujj. gis nga li xew Anamo. seen CICES. Sénégal ak 187 milliards am. Cour des comptes daal génnee na lu tolloog jànjar teg. fu muy mujjee. ana fii kan la fi ay rapport jàpp. xam nga sax jamonoy Ablaye Wade sax. am na rapport yi régie bi la jàpp. ba tax Ablaye Wade sax am na ñu fi tëj. ñii ne waaw dossier politique la ñii ne du politique ñoom Idriss Seck ñoom Modibo Diop. xamal ma la ay ñoom Ndongo Diaw. ay ñoom Gumbala Seck ñu ne nii xam nga ma la léegi politique laa du politique sax moom am nañu noonu waaw ñoom ko netoo am nañu noonu coppati ci famille politique am di leen tëj mm-hmm. waaye tonton mi bi mu ñëwee ak léegi wax ma yow kan moo bokk ci moom rapport dal ci kaw mu indi la ay jafe-jafe si mm. des rek ñeneen <laughs> ci kanam dinañ ci ñëw yaas ah, yaas bàyyil guerre ñëw <laughs> indil keneen critique ah critique la waaw kay waay gis eh critique ak kii presque ñoom ñoo xaw a nuroo affaire classée. gis nga lii nga gis nii ponk lii nga xam ne dañ leen a jàpp yëpp ñu def naka sudul noonu yëpp. du mujj fenn. fenn la dul mujj mujj fenn fenn fenn. 24 heures ñëw ak ñun ci Omar Faye leeral askan wi. nee lu jëm ci wàllu yorinu askan wi suñu dëkk mi ngi dund guddi yi gën a lëndëm. ci dundam daal ci lu jëm ci wàllu yorin gu bon. maanaam ci guute leen jëm. non non non yorin gi kenn mësu koo gis. kenn mësu koo gis lii moom jar na tàccu jar na sara xolle kenn xamul lii lan la moo tax bruit bi indi écho ah. les échos les échos yéene kaay ñëw a ngin ci ASER vache à lait la ko ay directeur généraux def ratukaay traire waaw nag ba daal a ngi ñuy toog ci la ñuy rat kenn mës ta gis lu mel nii ku ciy takk jabar wala ngénte war a dëj gars yi ubbi keesu kër ga président conseil d'administration bi di ma dem ba sokk hmm. ñeenti millions lañ koy jox weer wu dee wu ne source année du yoon deux millions la parce que décret moom moo moom moo moo signé loolu mhm. moom mu ne leen man bokkuma ci décret bi quatre laay laal libéré nañ ko libération yéen kaay ñëw ñun ci enquête Petro-Tim bi mhm. xam nga Nafi Ngom Keïta da doon enquête fii ci affaire ñoom Aliou Sall affaire pétrole bi fan la mujje dañ ko mujj dàq moom Nafi Ngom dañ ko mujj dàq journal bi tey mu ñëw nañu of nag setal na Aliou Sall ba noppi di sàkku nag ñu topp Karim Wade. c'est incroyable. <coughs> donc donc donc Nafi Ngom la mu defoon kon. du woon dëgg entre guillemets la libération bëgg a wax. mais mii mais lii lii kenn mësu koo gis. Hmm. <laughs> parce que nee contrat yi dañ koo antidaté. Hmm. coow li coow li yëpp nee du Aliou Sall. Hmm. Karim Wade la ak Ibrahima Mbodj. ñu leen di topp pour faux et usage. et et pourtant celui qui en profite c'est Aliou Sall. c'est normal c'est devenu quotidien nag. c'est devenu mii mi mi mi non ñii yëpp nañu trop. wallaay. non Aliou moom ba mu demee. dig ñu naan dañ ko faa tegal caa mu toog. Ah. appel à mooy ah du mujj fenn la du mujj. fii ban rakku président de la République Afrique wala doomam ngay gis ñu indi la ay jafe-jafe xanaa boo fi jugee. Hmm. xanaa boo fi jugee. Aliou daal la ngi noonu rek. Hmm. nee nañ léegi satal nañ ko. Hmm. ana leer la quotidien yéen a kaay ñëw ak livre kudd baa ngi nii ak Pape Alé Niang mm. giraawaale tojaange yu dul jeex yorin gu bon Cheikh Oumar Anne nee na day porte plainte journaliste bi ak naan moom <laughs> na day porte plainte moom foo enquête am mujje kan moom na fi ngoom na fi ngoom man na fi ngoom gars yi wàccee nañ ko ba mu laalee rakku tonton lañ ko wàccee mm. enquête yéene kaay ñëw ak ñun ci rapport bi Cour des comptes moom magistrat yi ñoo fi waxoon ne dañuy dañu dañuy dem Euh, càmbar xool ay mbiru ministre Moustapha Diop mu défier leen sampal leen dënd boo ministre bi bi nga affaire bi du mujj na xanaa déggoo li ma la wax ñii liggéeyee ci corps de contrôle état yi dañoo waroon démissionné mm-hmm. bu ñu démissionné woon président de la république tas koor yi amul sax mm-hmm. mais amul njariñ mm-hmm. jàpp ay nit loxo ci poos flagrant délit ay sàcc lañu ñu indi ñëw ba pare xamal lii bu doon opposition bi ñoom ñoo leen tuumaal ñu ne waaw ñu ne lii ay waxu kasam wala waxu opposant waaye ay entité démembrement yu bokk ci état. ak yenn yu président bi créé. ak yu président bi créé boppam def enquête ba mu leer ñu ñëw ne ko sa njaboot gi ñin ñëpp ci lañ mais ñii ay sàcc lañ. nga jël yëpp dugal koo bëgg a jàpp jàpp koo bëggul doo ko jàpp. malgouvernance des institutions. li li li matal lijjanti nag mooy créé yi boobu. Hmm. nañ fexe ba buñ ko tëj. Hmm. li mm-hmm. ma jaaxal Fassane dañ na rapport bi deux mille quinze deux mille seize deux mille dix ah, bi ñuy départ waaw dañu léegi nag problème bi mooy moment bi ñuy gëstu loolu dugg si ñoom ñu scandale lu kenn scandalul hmm. loolooy problème bi déedéet man day man comprendre ma de dégg mm. mi ngi nii. Mm. Euh, caisse de déposé consignation. 30 milliards. nee nañ pour defar ci ab tour ñaari taax yoo xam ne ci mamel waaye lii cour des comptes wax leen mooy yàq la. Mm-hmm. juróomi at yi tuur yooyu du indil askan wi dara. Mm. mënoon ngeen koo def ci logements sociaux yi. Mm-hmm. dëkkuwaay ndimbal jaboot nga ca Mbambilor. Mm-hmm. fa lañ ko jëlee. waa plan jaxaay na. plan jaxaay ngi nii ñetti téeméer ci ay famille yoo xam ne ñu ngi ci benn. dama ragal ne gars yi. waa 50 millions ci foos gi nag. kenn du ci wax. ah boo ak li buun révélé. wax ci wax ci wax ci yaa seen wax ci. wax ci yaa seen <laughs> wax ci. wax ci. Ah. wax ci cinquante millions mu ne cinquante la. foos. ba. non Cissesse. waaw. vide foos. plus de cinquante millions dindi buddi ñax plus de soixante dix millions. waaw ma jël ma bay. moom laa wax de man dama dama sawar nii dama.